voilà loolu la loolu mooy objectif jappale jàppale néew di doole ak formé wu ak teunk ay xaritoo yi nga xamne après dinañu mën a jëriñ ëllëg activités yi bëri na ndax chaque année dañuy def euh, dañuy def ay ndimbal dañuy xool benn bërëb bi nga xamne ñom dañuy soxla et ñu ñew jappale leen seen et centre Talibou Daaw yàgg nañ leen andi euh SDF yi sans domicile fixe yi yàgg nañ leen andi ndimbal concernant environnement plantation d'arbres yi demoon nañ ci benn école bu tuddu Malick Diop bu nekk Thiaroye ñu jappale leen ci te instant yi pare gu ñu xam naa dinañ def yeneen. Donc, bi dañ ko accueillir avec beaucoup de joie beaucoup de bonheur parce que nous sommes dimbale famille yi yi war a ñëw di accoucher fii ci maternité déjà responsable yi ñaari docteurs yi responsable de tout ça ñu ngi fi présent personnel bi ak suñu collaborateurs yi saf bi yëpp loolu mooy wane ni ñun lii ñu nous yi def yëg nañ ko au plus haut niveau dañ leen di remercier di leen gërëm au nom de toutes ces femmes là au nom ci turu jigéenu Tëngéej yëpp ndax ñoom lañ ko defal di nga gis femmes yi ñëw fii accoucher après du am du ñu toppatoo seen bopp en fait ñoom ñoo ko moom ci ci te ci cëppaandaw ga don yi ci service social lay mujjee te ñi nga xam ne amuñu moyen ñoom lañ koy jox bu ñu paree ñu def benn rapport wax bu baax kan ak kan ko utiliser kañ def benn évaluation après jégal ko Rotary wan leen ni li ngeen ñu may nii lañ ko utiliser donc loolu vraiment ñoom nekkuñu fi mais ñun ñu ngi fi leen fi nekkal di leen wax waaw Rasulaay leen gërëm di leen sant parce que xam nga nit bu ñëwee amul lu mu fayee day dugg fii dugg fii dugg fu ne di ñaanaatu yooyu day am mais lii dina tax ñi xam ne amuñu lu ñu fayee ñëw directement jox leen ñu soins yi gaaw et ñu gaaw pare ñibbi seen kër ci jàmm